ربنا كما سبق ثقيلا من يوم خير حبيبهم مقدار من دونهم

la la

والمسلمات أمن رب العالمين كنت سباء لجميع المسلمين والمحسنات يا ولي المؤمنين صليا مسلما على رسول في يا من أباني avril 2022 kon ñi ngi fii tey ji euh, ci kër sëñ Tuubaa gi feeti ci sowu jumaa ji euh, loolu kon moom lañ leen euh, andiloon tey njàng mi kon àgg na bu soo ak jàmm incha allah kuréel 1B bu hizbut ñoom bu tuubaa ñoom ñoo war a yore njàng mi te sëñ Maam Ngor Fall di jiite njàng mi ñi nga xam ne tam ñoo war a gàttandu sëriñ bi mooy kuréel 1 bu Jurbel ñoom ñoo war a gàttandu sëriñ bi ñoom ñoo ko war a gunge tamit bés bu njàng mi àggee Euh, kon lii mooy li nga xam ne moom lañ leen fi andiloon euh, muy jataay boo xam ne euh, kenn ku ci ne yàkkamtiwoo sax jeex gi am ndax waxtu rek la ñuy jàng waaye day mel ne nit ñi buroon seen sago dana fa danañ fi toogaat toogaat fi ba waxtu woo xam ni day jéggi dayo waaye nag dañu koy joxaat rendez bu suba rek ci suñuy antenne yi di ngeen suivraat njàng mi nga xam ne war na fi am ci télévision bi ak ci rajo bi ak ci support yëpp internet bi ak euh, muy loo xam ne tamit nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen ba weer yu mat incha allah euh, loolu mooy programme bi ñu leen andiloon tey kon gis ngeen ne saal bi mi ngi tàmbali euh, vidéo nit ñaa ngi génn sëriñ bi itam léegi mu génn mën a delluwaat ci yeneen yitte loolu mooy li nga xam ne tey andiloon lañ leen ko ci bisu weeru koor gi. fidèles téléspectateurs d'Al Mouridiyyah vous venez de suivre en direct la déclamation sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est une déclamation d'une heure. Et le groupe qui était à l'honneur est le groupe de euh, 1A de Touba, de Hizbut puisque tous les courriels appartiennent à Hizbut Les 10 qui ont été sélectionnés euh, sont des courriels de Hizbut Je crois qu'on l'a déjà dit et assez éclairé. Et aujourd'hui encore, c'est une déclamation suave qui nous a été servie. Les gens se sont délectés de ces mélodies qui ont baissé l'univers une heure durant. Et il faut rendre grâce à Dieu, Cheikh Muntaka, sa préoccupation, c'est que les gens puissent s'attirer les bénéfices charismatiques attachés à une telle sé séquence, à une telle euh, organisation, parce que, il, il pour rappel, c'est ainsi que cela s'est passé durant le séjour du Cheikh à Djurbel, et il n'a fait que réinvestir cet événement ici à Touba pour que nous puissions le vivre et en tirer le bénéfice le plus complet. Voilà donc pour ce qui est du programme d'aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, c'est le courriel 1B de Isoutarché de Touba qui sera à l'honneur. Ce courriel qui est dont le maître de cœur est Mam Gourfal, Serigne Mam Gourfal. Et le courriel qui aura la charge de euh, raccompagner le calife et aller l'accueillir, c'est également le courriel 3 de la cellule Isoutarché de Djurbel. Et voilà donc bien ficelé le programme de demain. Et nous vous fixons rendez-vous, Inch'Allah, même heure, hein, sur les mêmes et également pour ceux qui le vivent en présentiel, qu'ils sachent que c'est la même salle. Hein, ici, au niveau de la résidence Cheikh Khadim, la résidence des hôtes de Serine Touba, qui se trouve à l'ouest de la grande mosquée de Touba. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'autre rubrique de notre relation. C'est ce que nous avions commencé hier euh, sur euh, l'écrit de Cheikh Amdouamba qui a pour titre Mimia. Et nous avons, au pas de course, présenté l'œuvre hein, en passant de façon évasive sur les aspects formels et les aspects euh, de fond. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les aspects formels pour vous convaincre de ce que nous avions dit. Mais Mimieux est un chef-d'œuvre incommensurable, c'est un chef-d'œuvre majuscule, mais il est d'une richesse incommensurable. Et par rapport aux critères formels, nous avions commencé à vous parler du leitmotiv qui est très présent, qui est une de style qui très présente dans euh, cet ouvrage de 200 vers et il faut dire que c'est une entrée par les critères formels que nous allons faire aujourd'hui et il y aura également une autre séance où nous allons sur les aspects de fond, sur les thématiques qui ont été abordées. Évidemment, c'est un poème qui est très riche au plan des thématiques abordées, mais il n'empêche que la poésie reste un exercice sur le signifiant, sur le texte, un exercice sur les aspects de forme Et euh, celui qui est un poète n'échappe pas à cette règle. Et le cheikh n'échappe pas à cette règle. On verra que lui qui disait que on lui a assujetti le secret de la langue arabe, mais cela va rejaillir sur les ouvrages qu'il a fait. Et mm, Mimier est également un ouvrage, n'est-ce pas, qui nous réserve beaucoup de surprises par rapport à ses critères formels. Pour revenir